asalaamaaleykum mbokku téléspectateur zone 7 TV yi ñu ngi am mbégte rek di leen nuyuwaat nag bu baax di leen ziyaara kenn ku ci dekk rek ñu fekk la fi nga toog rek jox la lii rek sa yéeguwaay tarkal macha allah pencu demb ak tey rek la ñu wax ñëwaat na heure bi jotati na muy àjjuma tarkala macha allah euh, duñ leen ko doot dootuñu leen ko présenté euh, pencu démb ak tey maanaam mag ñi ak xale yi wala sax ma ne ndaw ñi ak mag ñi tarkala macha allah tey nag ñu ñëw seet si ndaanaan. ndax nee naa la léegi euh, pencu démb ak tey dafay daal di rek dox ak ay tànkam dem fekki ji ndaanaan ba fu mu mënti nekk rek ñu daal di la fekki fasal li nga xamante ne si rek moom la ndaanaan bi di def waaye tey tamit ñu ngi ñëw ci benn këru ndaanaan boo xamante ne kenn dootu ko présenté rawatina foofu ca zone 7 TV tarkalla macha allah muy Badiane Sali tey nag ñu ngi am comme Badiane Sali tey moom la ñu fekk si fii rek ci ñàgg tarkalla ci ay kanami nawleem ci ay kanami it euh, dëkkandoowam tey Badiane Sali ku nekk xam ko ci aada ak cosaan te ñu nit aada ak cosaan def ñoo ñor kon nag tey ñu ngi fekk si kii rek di bàjjen Sali tarkalla di bàjjenu gox fii rek ci ñàgg tarkalla macha allah bàjjen Sali nan ngay nuyoo téléspectateur zone 7 TV yi lay seetaan. waa kañ lay Fatou maa ngi nuyu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp samay dëkkandoo maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax moom laay njëkke moom laay mujjee mhm. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu imam toog suñu imam Baye Diop di nuyu imam di nuyu chef di quartier di nuyu ñëpp euh, notable yi ci quartier bi may mun a jàllo maire yeeg ñoom euh, mënumaa lim ñëpp daal ñoom Sali Kan ak bàjjan bee bàjjan Mati Ñang ñëpp maa ngi leen di nuyu di julli ci yonente bi euh, si may defar dafa doon loo xam ne aada la ak cosaan mhm. parce que dugub la ak mboq ak ceeb ak yeneen yi ma siy def yoo xam ne dafa baax si xale ci xiiboon xale bu xiiboon moo tax ma gis xale dama tuxu si fii gis xale yi ni ñu xiiboonee comme defoon naa formation bi te jàngoon naa ko ma ne kon léegi comme demee na nii daal naa jàppale xale yi noonu di ko defaral ba ñu tàmm ko ci man daal buñ ko tàmmee nag léegi ku bëgg daf may commande ma defaral la mhm. waaw am na ay bitig yi may jox ak ñëpp daal maa ngi defar ci koñ bi te yàlla def na si jàmm daal ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax ay ca loolu la bàjjen Sali wax nee na waa koñ bi xam nan ko ndax ñu ngi ci gis seen bopp waaye nee naa la xiiboon xewi na ci miim réew rawatina fii rek ci ñàgg tarkal la bàjjen Sali transformation lii di céréale local rek la bàjjen Sali di liggéey te it moom rek la imposé ñi nga xamante ne si rek ñooy askan bi ba tax na ñëpp xam nan ko ku ci sa doom xaw a loof ñu ne la dawal ci bàjjen Sali ba tax na bàjjen Sali lañu gis nii lan la dugub fan nga jëm machine wala. da ngay dem wali. léegi bàjjan sali boo walee lan nga ci nar a def. defar ko xanaa comme ni ma koy def comme d'habitude. Mhm. def nii def ko sunguf. waaw ah. moo ko defee sunguf léegi su ko defee ñu koy jënd. di ko di ko ruyal xale yi mag ñeeg meer yeeg sax dañ koy naan ak ñi xiiboon ñeeg ñi feebar mhm. ñëpp dañ koy naan te dafa baax daal boo ko naan dalay jox appétit mhm. boo xëyee su ba naan ko moom da ngay lekk bu baax a baax baax na si mag baax na si xale bii moom càkri la càkkiri la waaw càkkiri da nga koy tayaat rek mhm. def ci sa soow naan mhm. bii tam kii la bii sunguf si moo nekk nii ana araw ba sax am na araw mhm, araw ngi biir ak cere lépp am na. Mhm. façon boo bëgg rek am na fii ci ah waa Badiane Saly nee na cere am na caakiri am na nee naa la bu la neexee nga fonde mbaa rek nga daal di laax waaye dañuy daal di dem machine ñëw nga wan ñu nan nga mënee Badiane Saly ak naka ngay arawee ak naka nga koy defee rek ba mu nekk sankal ak naka nga la Badiane Saly di liggéeyee ndaanaan la ñu seet si zone seet ci kanam. 7TV nañu leen ko waxee rek noonu rek lañ ko daal di defee ndax bu ngeen seetloo ne sànq ànd nañu ak bàjjen sali rek ca machine ba mu daal di wane rek ni nga xam ne rek taskal noonu la ko borom machine ba rek di walalee ñëw na tamit wane li nga xamante ne si it noonu lay ràccee lii di sungufam ndax nee na boo ko bàyyee ci paan bi ak tàngaay gi sunguf si mën naa forox waaye nag lu forox nga jaay ko askan gi moom yaakaar naa ne loraange bu rëy lay daal di indi ba tax na bàjjen Sali fànn boobu da cee jóg taxaw ci bu baax a baax ak set bu mat sëkk rek moom lañu fi gis sànq ba léegi yaakaar naa ne li ngeen seetaan neex na leen waaye tamit set beeg seetlu bi nga xamante ne si rek moom ngeen ci ko tamit lu ama ama am solo la ndax ku ne dugub ne set ku ne dugub ne defar ba mu baax xeer yeeg yu ni mel yooyu yëpp doo ko ci nemmeeku ba tax na rek bàjjen Sali dama lay rek daal di bàyyeeg téléspectateur Zone 7 TV yi ñuy seetaan ak sa dëkkandoo yu ñaawul yi tarkal la ñoom itam ñu daal di cee wax euh, ñoom tamit seeni xalaat tarkal la euh, bàjjen Sali ginnaaw bi ñu demee ca machine ba ba ñëw ràcc bi nga ko ràcc nga ne lan la. ràcc bi mooy waral du forox parce que comme ci tàngaay lañ nekk hmm. moo tax ma ne xaaral ma ràcc ko su ko defee dafa am benn euh, table boo xam ne spécial la pour ràcc ko parce que dafa am euh, air bi génn ci suuf su ko defee bu fekkee si air bi ci kaw du mun a forox bu fekkee ne nag tàng na ba mu tàng trop trop dama koy jël dugal ko ci mbuus def ko ci frigo mooy waral du forox noonu looloo tax ma ma ma koy defee noonu ah waaw léegi sa lii dañu gis euh, kaw taabal bi nga xamante ne si yow ci nga teg sa sunguf si mhm. dañ ci di gis euh, griyage yow grillage boobu lan lay wund ci biir mbir mi grillage bi mooy waral du tàng parce que bu amul air ci suuf day tàng moo day ah, faral di tàng moo tax pour air la wa pour <laughs> mhm. pour ma am suuf moo tax ma def ci grillage bi mhm. boo defee pare nga laaj ci sunguf si lalaat morceau ci kaw pour protéger ko weñ ñi duñ ci laa duñ ko laal weñ ñi duñ ko laal te dara du mun a naaw dem ci mooy waral muy set noonu mhm. nga bàyyi ko noonu mu woo ba pare nga def ci liñ ciy def daal di koy kii paqueté wala nga def ko ci sachet mhm. Mhm. ko defee nga ko jaay. nga mën koo jaay loolu loolu rek la bàjjen Sali daal di wax tarkal macha allah téléspectateur zone 7 TV yaakaar naa ne dénk ngeen ñu lii di rek di nopp bu baax mi ngir mën a taataan lu am solo yéen a ngi ci émission pencu démb ak tey tey rek ñu daal di fekk si kii di bàjjen Sali tarkal la fii fii rek si ñàgg rawatina nag ci biir këram ngir wane li nga xamante ne si rek moom la bàjjen Sali di liggéey étape par étape pàcc par pàcc rek ndeysaan ngeen daal di ci gis ba sax. wala sax nee naa la ba jàngaale ci sax nag ndeysaan nii nga xamante ne si rek noonu la ñuy daal di defaree lii di euh, dugub bi. sebet na ko ba mu set yóbbu na ko ca machine ba wal nan ko indi na ko ràcc na ko bàjjan Sali ban at mën nan koo xam ci nga commencé euh, transformation locale bii di aada rek ak cosaan te aada ak cosaan rek it euh, ñor la. yàgg na de depuis 2001. mille on laa ko commencé dama ko jàngoon waaw dama ko jàngoon Sicap. laa ko jàngee woon moo ko tamaateeg yëpp mun naa transformé yooyu yëpp mun naa ko transformé mhm. mais xam nga boo nekkee ci milieu boo xam ne xamuñu la ci loolu mhm. doo mun a wax boo boo waxee duñ la gëm tànk defoo nga gis mhm. ñoom duñ ñu gis goo doo ñu la mun a gëm moo tax mais jàpp nga naa ko dakaar Dakar asbef laa ko jàngee woon Mhm. moo tax 2014 nag bi ma ñëwee fii ci laa ko commencé di def. Mhm. ma ñëwee gis ne xale yi dañuy xiiboon ak yooyu ma daal di koy commencé di ko def di ko jaay ndànk-ndànk. Mhm. ba ni ma ci amee li ma ci am nii di jaay ay boutiques ak yooyu di ko jaay waa koñ bi. waa koñ bi itam jàpp nañ si ñoom it dañ koy jënd di ko consommer ak seen i doom. waaw am naa si ay clients yu baax ñi may jàppale di si jënd. consommer local la ñu wax bàjjen Sali ci loolu lay daal di yëngu. consommer local la ñu wax bàjjan Sali ci loolu rek lay daal di dundee consommer la ñu wax bàjjan Sali ci loolu rek lay daal di nekk ba da jàngal ko sax ñi nga xamante ne si rek ñooy ay njabootam ndax da ko jàngal ay njabootam mais bàjjan Sali consommer local bi nga xamante ne si moom ngay def muy transformation céréale locale est-ce que yaa ngi ciy jàngal ndaw yi nga xamante ne si tey ñoom nga dëkkal ngir dañu ne mag mën naa ba cim réew waaye. Euh, mag ñi lu ñu xam est-ce que wa jàngal nga ko ñi nga xamante ne si daal en fait mooy xale yi nga xamante ne si tey ñoo nekk fii boo fàttalikoo mësoon naa la ko wax zone set ca euh, télé ba mm-hmm. woon naa la bàjjan Sali est-ce que yaa ngi faral di woo xale yi di leen jàngal ngir ñoom tam bu ëllëgee ñu mën caa man ba ne kat man bàjjan Sali moom moo ñu jàngal lii ñu xam tey mu doon mérite ak ndam ci yow est-ce que yaa ngi def loolu loolu depuis daaw dafa am benn kii bu ñu ubbi woon fee benn bureau bu ñu woon pour ndaw yi foofu mm-hmm. benn euh, pa bu ñuy wax Pa Sey moom enseignant la woon léegi nag dafa doon regroupé ay xale foofu léegi su ko def ma ne ko léegi dama bëggoon dañ mu ne proposé ko daal ma ne ko kon léegi da ngay jënd matériel yi mhm. su ko defee ñu commencé di ko jàngal ndaw yi mhm. léegi nag mu ne ma waaw mais depuis boobu léegi defal naa ko kii bi li ñu war a jënd mais boobu tey maa ngi koy déglu daal waxaatuma li si jëm mhm. loolu tax ma doon ko déglu boobu ba tey pour ñu commencé di ko def pour nga di ko def fii sa biir kër sama biir kër ku bëgg mun na ñëw ma defal ko ko waaw amu ci benn xaar ma yàlla kenn ku bëgg rek mun na ñëw ma defal ko ko ah kon dégg ngeen ko bàjjan Sali nee na amu ci benn xaar ma yàlla ngir képp koo xamante ne si rek bëgg nga jàng lii de transformation locale ndax kat macha allah bàjjan Sali mi ngi ciy gis boppam macha allah sama cat ak sama catu morom. waaye nag ndaw ñi kon gaaw leen farlu dem ca bàjjan sali ndagam nangu na ko mu jàngal leen lii di transformation lii bi céréale locale ba tax na foo mënti nekk rek di nga ko mën a liggéeye foo mënti nekk di nga ko mën a jaay ndax jigéen kat day am métier rawatina bu sa jàng soriwulee sa jàng sax bu soree war ngaa mën a xam lii di aada ak cosaan nga xam ne ci depuis ñoom maam la woon war na ñoo continuer di ko jëriñoo war nañoo continuer tamit di ko dundee ba mu tasaaroo ci suñuy doom tasaaroo ci àddina wërngal képp tark tubaarkàlla macha allah euh, bàjjan Sali ne nga bàjjanu gox nga fii nga ne euh, yow yaa leen proposé bàjjan gox bi wala ñoom rek ñoom ñoo la xool nga neex leen rek ñu ne bàjjan Sali yaa ñu doy pour nga nekk fii suñu bàjjanu gox. man wu ma kenn xam nga ma rek man daal toog rek jàpp sama njàmbur ñu woo ma réunion ne ma ñëwal réunion kër chef du quartier ma dem chef du quartier réunion ñu toog waxtaan léegi ñu proposé ma ko man leen waaw léegi maak a jàll bii ñoo fa tase ak mhm. Seck ak Maimouna Fall mi ak yeneen notable yu nekk ci quartier bi daal léegi ñu proposé ma ñu ne ma ah bàjjen gi de dañ la ko bëgg a jox man leen waa baax na ba tey mhm. léegi nag ma kii noo ma waa jàpp si man leen waa baax na soobee yàlla dinaa si jàpp mhm. ci laa nekkee bàjjenu gox daal waaw loolu de moom Sali bi nga nekkee bàjjanu gox ba léegi fii ci ñàgg lan nga ci mës a dund loo xamante ne si rek moom moo la metti aw ma ci dara lu ma metti parce que ma ma neex ma di ko def mhm. waaw neex na ma trop aw ma ci dara lu ma metti xanaa nit am problème te du ma ko mën a faj mhm. nit am soxla te du ma ko mën a faj xanaa loolu daal ma siy metti bi amul lu ma si metti loolu kese moom moo la si loolu moo la la soxlaam te mënoo ko moo si metti lan nga ci dund loo xamante ne si bàjjan sali depuis nga nekk euh, bàjjanu gox ba tey lan moo la ci neex lan moo si neex mooy di defal doomi aadama rek mhm. loolu daal moo ma si neex parce que man noonu la ma yàlla bindee même foo ma dëkkoon fee cité port noonu laa fa mel boo fa demoon tey tey tey tey maman Sali lañ ma fay wooy comme niñ may wooy bàjjen gox fii boo taxawee ne leen Sali fay laay laaj kenn xamuma fa maman Sali rek lañ may wooy cité port maman Sali mhm. boo fa demoon tey tey tey loolu lañ ma xamee man fu ma dem rek loolu yàllaa ko def ci man xaw ma daal lan la mhm. mun am mbiru yàlla la daal xaw ma mhm. waaw euh, bàjjen Sali yaa ngi ci pencu démb ak tey aada ak cosaan rek daal di ñu ñor rawatina émission bii nga xamante ne si yëkkati nan ko nan la mag ñi daan solo démb ak ni ko xale yi di defee tey yéen en tant que mag naka ngeen gisee loolu ak dundin bi nga xamante ne si rekk jamono jii ku ne xam ne ne diwlin gi bari na gars yi nee nañu feebar yi bari nañu yéen en tant que ay mag naka ngeen doon dundee démb ba mën a dund da ci gis mag boo xamante ne si macha allah day dund ay at yu baree baree bari te du mësa dem hopital parce que la muy dundee la wala la muy lan la daal leen may secret bi. secret bi mooy xanaa moytu yenn lekk yi rek yenn hmm. lekk yi nga xam ne boo ko lekkee dina la indil problème. Hmm. parce que man bañ naa ko ba man ay li may lekk cere ci ëpp man li may liggéey dama ciy lekk maanaam cere ak mbuum wala ay affaire rek laay faral di lekk. Hmm. tey jii sax cere mbuum laa leen laa togg waaw man <laughs> tey sax cere mbuum laa togg may mën a jàll ko dégg de. <laughs> cere laa togg tey pour añee ko man fu ma toll mun naa lekk cere man te cere tam dafa baax dalay may sécurité ndax bu fekkee ne xale xiif na Mm-hmm. cere am na nga tooyal daal di koy jox mm-hmm. mais topp ceeb dëwlin ceeb dëwlin bu dëwlin chéré am nga beneen solution bu dëwlin chéré ceeb a ngi fi cere xam ma cere ngi fi mm-hmm. mun ngaa bañ a togg ceeb nga togg cere sa kër cere ak cere aajowul dëwlin bu bëri wala nat nattu bi ñu yàlla teg certes dëgg la mais am na yoo xam ne ñoo ko teg suñu bopp mm. bu ñu góorgóorloo di changer suñu alimentation di jéem a lekk li nga xam ne ñoo ko moom fii lañ ko defaree di dellu ci bu baax a baax a baax defe naa lool daal mooy gën ci ñun mhm. mais di teg suñu bopp fitna boo xam ne diwlin cher na nga topp ci diwlin di ko jënd da ngay sonal sa bopp rek da ngay sonal sa bopp rek nañ góorgóorlu si dund dund mag ñi nañ doon dunde nañ ci góorgóorlu ay mhm. laax ak ay ceeb ak ay affaire yooyu du la yàqal dara daal mhm. du la indil tension du la indil diabète du la indil dara yooyu daal defe naa moo gën ci ñun te ni ñuy solo tamit ñu gën jëm koo changer changer suñu colin tamit ndax xale yi tam ñu di ci di ci yar dina baax trop yar leen ci ni ñuy soloo tamit baax na trop. Mhm. ñu changer seen comportement waaw. Mhm. Mhm. Ah, xale yi nu yar leen euh, nee na ci li ñuy solo loolu la bàjjen euh, Sali wax waaye da nga ciy gis koo xamante ne si ci jamono ji ñu toll day nekk jigéen ñu wérul sax waaye da nga ko ciy gis mu sol lu danga danga dang loo xamante ne si danga naan est-ce que kii sax du gaañ euh, ki nga xamante ne si mooy li mu ëmb te yéen démb mag ñi dégg naa dañ daan wa ëmb. ba wasin doomu mës xam sax ndax kii jigéenu wérul la ndax nëbbatu bi nga xamante ne si ñoom moom lañ doon nëbbatu ak nëbb bi nga xamante ne si ñoom moom la ñu doon nëbb lii di seen awra ak jamono ji nga xam ne dafa mel ni ëmb di ko fësal tendance la na ci réseaux sociaux yi ba tax na avortement yi bari na dee yi bari na maanaam euh, lépp loo xamante ne si nit bu ko déggee ne kaw téef ci jamono ji la xew bàjjen Sali doy na waar de même dispensaire sa su ma demee di def causerie dama leen ciy waxtaanam da ngay si jigéen ku wasin léegi léegi léegi sol jiin léegi léegi xam nga loolu baaxul boo solee jiin wala sol baa da ngay tëj sa bopp lépp loo xam ne war na ayeer yi sa kanam da nga koy tëj mm-hmm. loolu mun na indi ay infection mun na indi leen ay yoo feebar yoo xam ne tamit dala jural ngaañ mm-hmm. nampal bi aussi respecté wuñ ko ñu duñu nàmpal bu baax xale jigéen boo waxee dëgër nañ bopp duñu mm-hmm. dégg boo waxee ñu ne la jamono yu weesu la daal mhm. te jamono yu weesu yooyu tamit mun nga see jëlee loo xam ne tamit boo xamul fa nga jógee doo doo xam fa nga boo xamul fa nga jëm dellul fa nga jógee woon mhm. nañ dellu cosaan daal mooy gën ci ñun ma nekk defe naa waaw loolu gën ci ñun waaw ay ca nañu dellu cosaan lii la bàjjen Sali wax ba tax na gis nga jigéenu wérul démb suñu mag ñi wala suñu maam yi dañu daan nekk jigéenu wérul da ngay jékki saay rek ñu ne diw am na doom loolu maa ngi dégg ñu koy nettali da ngay jékki saa yi ñu ne diw am na doom nga naan kii fan la ko dencoon waaye léegi kenn dootul wax diw fan la ko dencoon ndax trois mois ngay ëmb biir ba génn nga commencé ko fësal ba Sénégal xam ne ne yow mi ëmb nga commencé ngaa jël sa biir bi di ko sinap ba ñëpp xam ne na yow mi dangaa ëmb lu ca war a laxas laxasu fa wala sa doom juddu mel new xamante ne sii kenn du ko mën a xool nga ne lii dañ ma kaa def fekk ne yaa ko def sa bopp sa le hôpital bi nga xamante ne si yaa nga fa yan problème nga fay jànkonteel ak jigéen ñi nga xamante ne si des fois di bëgg sensibiliser ñi nga xamante ne si ñooy ay jigéen mm. Mm. ñu ñu ñu xaw a mel ni ku dëgër bopp wala du ñu dégg li nga xam ne mooy conseil bi nga xam ne moom nga leen di jox te seen njëriñ kese la ah. ban problème nga si ma sa am ak ñooñu di leen jéem a rek jëmale ci yoon boo xamante ne si seen njëriñ la ñoom ñoom léegi yeewu nañ bu baax parce que bu mhm. fekkee ne vaccination yi la yeewu nañ ci bu baax a baax mhm. affaire naan garab yeeg yooyu yëpp loo leen ci wax daal ñoom d'accord dañ ñoom amuñ ci bi amuñ ci problème boobu moom mhm. temps yi moom yeewu nañ bu baax xale yi jigéen yi moom yeewu nañ bu baax wax ji moom bëreetul léegi comme ça niñ doon nekk ci ñoom di dëgër bopp di dàgg santeeg ñooñu defatuñ ko moom déedéet amatuma amatuñ par problème boobu amatuñ ko bàjjan Sali boo bàjjanu gox ne waxtaan soo nee bàjjanu gox nelal lal basang ni comme niñ ko defee nii rek maanaam waxtaan ak askan wi delloo li nga xamante ne si mooy sa xalaat askan wi ndax sa li am na ci jeeg boo xam ne mu ngi toog këram di fa dund tar di fa dund lu metti mënu koo wax ndax ku am sutura la ku nu yar la ba ñu ko yebee ne ko sëyil yaay ji dafa ne ko ba ma téye sa kër baay bii ba tey mësumaa fay mësumaa jóg loo fa mën a jànkonteel toogal nga sëy loolu buñ ko yebee xale di nga sëy ba dee waaye soxla nañu comme jamono ji bàjjen bi nga xamante ne sii moom la ñu xamoon muy bàjjen bi nga xam ne dafa bokk ak sa baay muy samagu papa wala muy rakkam bàjjen yooyu ñoo daan dugg ci kër yi di sensibiliser wala bu nga xamante ne si yow sa doomu càmmiñ am na doom amal sa sa doomu càmmiñ maye nanu ko nga dégg tuuti ci sa nopp bii rek ne am na problème yow da ngay dox ndànk ndey du yëg baay du yëg kenn du yëg yow moom toog ak yàlla nga toog yedd ko fàttali ko li nga xamante ne si moom lañ ko yebee woon waaye bàjjen Sali est-ce que bàjjen yooyu léegi amati na. bàjjen yooyu amati na ba léegi am na si ñoo xam ne ba léegi ñu garde garder seen culture ñoo ngi ñoo ngi ciy continuer di ko def. Mhm. mais am na si xale yoo xam ne dañoo neexu la waxal tamit mhm. am na ñoo xale yoo xam ne. neexu ñoo waxal seen xalaat doy da leen seen xalaat daal dañu defe ne ñoom mën nañu fekk mënuñu te sëy dafa doon lu yàgg lu yàggaay boo xam ne da nga foog nga am mag bu lay conseiller di la wax fa mu doon jaar démb yow su ko defee nga sukkandiku foofu di fa jaar yow tamit il faut mu am mag ñu mel noonu ci seen biir pour ñu mën a sëy sëy bu normal moo tax léegi loo ci gis mhm. sëy yi bëri na di tas yàqu na yàqu yàqeet jamono ji moom doy na waar lool macha allah. ah mais Badiane Sali foofu dama lay xaw a dog tuuti ne la xale yi nga xamante ne si ñoo dugg ci sëy te seen sëy di gaaw a dagg gisatuñu bàjjen bi bokk ak seen yaay safurlaa bokk gisatuñu bàjjen bu bokk ak seen papa koo xamante ne si day ñëw di leen yedd ak di leen delloo si fàttali leen li nga xamante ne si ñoom moom lañ leen muuree woon yow bàjjen Sali en tant que bàjjenu gox est-ce que di nga dégg nit mu ne ci kër sonn fa am sutura lool bëggul ma sàmba xamal ko bëggul ma demba xamal ko bàjjen sa li nga dox sa tànk sutura dem régler problème ñëwaat est-ce que loolu yaa ngi koy faral di def parce que xale yi des fois il faut surtout nouvelle génération bi ñun suñu classe ki il faut ñu dimbale nu ñun suñu amul ku ñuy waxtaanal ak di ñu delloo si maasik ñun am sutura lool amaana problème ba dina ñu rey ndax guwaatar lay indil jéeg ji sëy pour lax ya génn nañu guwaatar yaa xam sa njëkkee la koy def yaa xam sa goro am na ci goro yoo xam ne bàjjan sa lu yàlla xam doy na nañu sonnee ci sëy du ñu may chance boobu ñi nga xamante ne si ñooy jéeg yi sëy si tey ci biir kër rawatina njëkkee yu góor yi njëkkee yu góor yi nga xam ne jamono ji ñooy ruubee kër yi sa jabaru càmmiñ la bëgguloo ko ndax bañ koy takk neexu la bëgguloo ko ndax xeeb nga fameem nga doon njëkkee bu góor bu ñàkk fayda war a xëy liggéey da ngay tëdd ba naaj bu tàng bu jeeg ba tegee cin nga ne ko teggil ma tàngal kafe bu la nee dama yàqamti añ ba nga tàppaas ko indil ko histoire ëlee nga mat sax ba xaat borom këramam ñëw nga kalaame ko waaye yu ñàkk fayda lañuy ñuy jotee ñi nga xamante ne si ñooy jeg ji sëy ci biir kër yi ñu koy muutuwaale yàlla boo am nag jëkkër joo xamante ne si bàjjan sa li benn nopp la lu ko ay waa këram wax loolu lay gëm doo mën a topp ki nga xamante ne si maanaam nga laaj sa soxna bi nga xamante ne si yow ci biir kër gi bàjjen sali yow yaa ko fi indi takk ko ci farata yàlla ak sunu Muhammad kon yaa ko war a protéger ci sa famille na leen jox ci respecté leen waaye ñoom itam nan ko ko delloo waaye dañu koy bundu xataal doomu jàmbur ju lool te du mën a wax bàjjen Sali ñooñu lan ngay wax si ñoom ñooñu tam dañ ciy am ay problème parce que bu ñu ci amee problème bu hmm. fekkee man kese mënu ma koo régler hmm. damay woo kii mu ñëw jàppale wala ma woo Anta Fall wala ma woo keneen mu hmm. am na si benn boo xam ne këram koñam boobu chaque jour bu ma waxee dama koy wax parce que daf ma yéem boobu boobu indi na problème bu rëy rëy rëy boo xam ne ba avortement am na ci ba xale ba sax ñàkk mu dafa mujj ñàkk bakkan ndeysaan nettali ñu ko wax ñu loolu lan la bàjjen bu dafa doon loo xam ne secret bi nekk ci moom waru ko wax dëgg la mais am na yoo xam da ngay dox nii rek nit ñu xam lan ngay dund. Mhm. wóor na yàlla am na problème yu nekk yoo xam ne buñ ko waxoon tey ñu ne lii kañ la kañ la fi kañ la kañ la fi am. Mhm. mais ñeme wuñ ko wax dañ koy muutuwaale noppiwaale ko. Mhm. mu ñuy metti ñu rek le lu ñu mën a régler ñu régler ko lu ñu mën a régler ñu bàyyi jour boobu dama mer ba dama ne kii yóbbu ko gendarmerie daggan na. bi kii ñëwee ne ma xale moom dafa mujj ñàkk bakkanam dama ko ne kii moom mais ñu bàyyi mu sedd. nu ñuy def. ah waa Badiane Saly nag fi réew mi toll Badiane Saly déglu ma est-ce que bàyyi que est-ce que Badiane Saly di jamono ji fi mu toll Badiane Saly mm. est-ce que bàyyi mu sedd mm. ak nëpp nëppal bi rayul jéeg ju bëri man ne am na ñoo xam ne ordonnance sax duñ ko jëndal seen i jabar waaw ordonnance bi gën a tuuti duñ leen ko jëndal eco ñu ne duñ ko jëndal te ñoom pourtant ba muy neex ñoom la woon mm-hmm. mais dañuy lànk ne duñ ko def léegi dañuy toog ba ma ba xam ne denk nañ à terme ñuy a dem di defi éco wala ñu def leneen wala boo waxee ñu ne jarul def éco dañuy jàkkante ak problème yow mais duñ ko wax fuñ koy waxee doo toog ci mbedd mi di ko wax foo koy waxee noo ko wax fenn léegi dangay dem ci Aysatu nga waxtaan ak moom ndànk mu jël ko wala nga wasin ba pare duñ la mun a duñ la fayal nga dem Aysatu doon ku baax koo xam ne sage-femme bi mu dem nga wax ak moom ndànk mu daal di régler problème bi wala garab yi nga xam ne sax dañu ñoo koy naan ñetti comprimé yi da ngay il faut nga leen pour ñu naan ko waa ñooñu bàjjan sali xanaa nekku ñoog seeni goro mais seeni i goro tamit mu léeg-léeg ñu xulloog ñoom wala ñu déggalanteeg ñoom bopp wala ñuy rombateeg ñoom xam nga yow dëkk bi rek nu mel léegi xale yi tamit am na si ñoo xam duñ dégg de xam na si ñoo xam duñ dégg. d' accord xam nga li tax duma ci d' accord gis nga xale yi ñëpp a ci yem dang nanu làmmin mën nanu tontu dunu wan baat waaye gis nga jéege gi ci jeeg indi violence fas yéene ne man su ma demee damay defante. mu ñëw fekk waa kër gi nooy népp day am kersaay def yenn yi buñ leen mayee chance duñu duñu def dara dara dara waaye bu fekkente ne sa doom moo xool ki nga xamante ne si moom moo lu kibatam la mu ko mënal mënaloo ko ko parce que yow yaayam nga fa mu koy jaar di ko mar a tocc di ko la laccum yow yaayam nga mënaloo ko ko waaye ki nga xam ne mët na ko seytaane ba mu takk indi ko ci biir kër war nga kakaa bëggale parce que problème bi bàjjan sali li ko indi mooy sa doom day xool ki ko mat seytaane ki nga xam ne mën na kaa jommal mu takk indi ko ci biir kër gi yaay ji taxaw ne ñett ne bëgguma ko bëgguma ko dalay jaral nga yàq sa sëyu doom bëgguma ko dalay jaral nga jéem a dem ci ay maaman ngir di lëbëje seeni xol ak di yàq seen xol doom may jéeg bi nga xam ne moo nekk ci kër gi chance bàjjan sali jéeg ji bëgg na nanu sëy waaye ñàkk leen may chance bi ñu leen ñàkk may chance moo tax sëy yu bëri di tas boo seetloo léegi sëy yi tas bari na te boo seetloo ba ca biir nga luxu mbóot ko njëkke yàlla njëkke obali yi nga xam ne danoo sëy ba tas bëgguñu may benn jeeg seen chance nday faatu xale tamit seen bët dafa rëy mhm. seen bët ci boppam moo rëy parce que ñun daan sëy sëy si da ngay sëy fekk si kër du am dara wala muy mhm. doog commencé liggéey nga nekk fa di muñ lu metti nga muñ lu naqari nga muñ mais ñoom dañuy bëgg lépp pare te même bu lépp paree sax ñoom dañuy bëgg leneen loo xam ne day lukki seen bët ba nga xam ne duñu mën a toog patience bu ñuy toogee pour sëy léegi amatuñ ko li si gën a bëri nag am na si xale yu bëgg sëy bi am na xale yoo xam ne amatuñ patience boobu mm-hmm. nañ waxante dëgg rek am na si xale yoo xam ne dañuy bëgg armoire bi pare na lal bi pare na pour ñu mun a toog bu baax régler sëy mais tant que loolu amul mais ñun ay matelas lañ fa daan fekk dañ si <laughs> doo doo mhm. ko mhm. ba a uti ñoo fekk nga fekk ko fi lépp pare mhm. il faut nga def ñefeel sa bopp tamit ba mun a toog mais dañ ko fa dul xaar léegi <laughs> si gën a bëri duñ ko fa xaar loolay problème day faatu ah bàjjen Tane nag est-ce que yéen da ngeen chance tamit <laughs> déet mayewu leen chance nag da ngeen di wax ak des fois nag des fois nag ndeysaan ba jën sali da ngay ñëw ci kër yow yaay ji nga bëgg sa doom lool làq ko nee jël doomi jàmbur ji nga xam ne moo sëy si ci kër sëy ni mu méttee yàlla bu sa jëkkër ñàkk nag ne ci kër gi ay frère am am dootoo ko defati bu sa jëkkër ñàkkee ay freeram am doo too ko defati man gis naa ci koo xamante ne si goroom da koy coupé courant mm. gorom da ko këppe ndox day rooti mhm. ndax lan jëkkëram amul loxom jotul ginnaawam est-ce que tamit nga boole say doom jur leen ci farata yàlla ak sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga di leen di gën a lante mhm. ba seeni jabar bu nu ñëwee nga di leen di gën a encore loolu mooy indi tension yi nga xam ne mooy faral di nekk ci kër te gis nga bàjjan sali dañ ne ku la jiitu ci néeg bu lëndam moo la naan fi ngay toog mag ñi dama yaakaar ne mhm. kenn gënul mieux placé ngir xam leen li nga xamante ne si mooy sëy kenn gënul mieux placé ngir gën a xam ne ñoom ñii sëy metti na lem la la ca biir lépp kaani la kon dañu war di sensibiliser ak ji muñal ñi nga xamante ne si ñoom ñoo sëy si dañ ne xale wala sax jigéen xel ma matul waaye mag mi nga xam ne moom mi ngi ci biir kër gi moo ko ëpp expérience mag bi ko ëpp expérience nag bu joteeg jëkkëram sax mag boobu moo ko moo war a jël jëkkër ji sax ne ko eh, li nga def kii nangama ak ki nangam ndax li tax doomi jàmbur la doomi jàmbur bu ñu ko jëlee indi ko ci biir kër yow goro bi da nga ko war a protéger même su ko jëkkëram protéger wul mais yow goro gi protéger ko waaye des fois nga dugg ci kër gis jëkkër ji protéger jabaram goro gi ne déet du ci am bàjjan sa li situation yooyu ñuy faral di ko dund ba tax na léegi xale yi xam nga lu ñuy wax delloo naa ko lay taayam na dellu ci ndeyam ak baayam ndax mënuma ci moom dara ndax ay euh, maanaam yaayam moo ko gënal sëy bi te des fois am na ci parents yoo xam ne dañuy naan soo deful lii ma dogoog yow mm-hmm. chantage émotionnel boobu nga xam ne ñu ngi koy def des fois tamit ci bopp xale yi tamit normal na wala rek la matadi la parce que mag mu matee mm-hmm. yaa war a xam say doom nga yemale leen bañ leen a le mm. am na si ñoo xam ne wërsëg yamul mun nga si am doom boo xam ne mooy ëpp wërsëg sa kër mais da ngay am ak ñi amul yëpp nga yemale leen boot boole leen waaye bu fekkee ne mag mu matadi la boo tasee ak moom day gënal ay doom su ko defee problème yëpp moo ko indi si biir këram man sama waa kër bu may def ak ñoom ñoom bu ma leen di saaga dañ naan dikkalee ci na hmm. ñëpp laay boole saagandoo bu ma leen defaloon lu baax bu may def lu baax yéen ñoom ñëpp laay boole defal lu baax hmm. xaw ma ci ku baax xaw ma ci ku bon mais boo toppee xale yi tamit ngay seppi kii teg kii jël kii teg si kaw teg kii kii ci suuf tamit da ngay def problème sa kër sa kër du mos a neex du mos a neex mhm. mag mu matadi rek mooy def loolu mhm. mais soo matee moom say doom yëpp yaa leen jur sa biir yaa leen nàmpal kay jarul gënat le mhm. alalu àdduna jarul gënat le am jarul ko alalu àdduna jarul gënat le moom nga ne ko jarul gënat le il faut ñu delloo si siwaat ñu xel daal jàppale xale yi si biir kër yi jàppale leen ci seen sëy yi waaw bu ko defee affaire yi mun a dox Ah, ah, bàjjen Sali nan nga foog ne buñ ko jàppalee ñi nga xam ne ñoo nekk jéeg yi ci biir kër yi di sëy nan nga foog ne boo leen ko jàppalee daañu sëy nan nga foog ne tamit goro yi suñ leen mayee seen chance daañ toog sëy rek ba dee ni ko wéykat ba waxee sëy rek ba dee loolu day fekk nga may boromam chance mu toog say jur ci ay njaboot yu barke waaye gis naa ci it ñoo xamante ne si bëgguñu say ba ilaa bu daa bëgguñu say ba ba buñ la ca tuddee doom sax doom ja doo ko toppatoo turandoo ja doo ko toppatoo ndax yow bëggoo say ba loolu ñàkk dellu si yàlla rek parce que lu yàlla dogal kenn mënu ci dara bu yàlla xasee indi ndogalam bu fekkee ne mënoo ci dara ngay nangu ndogal rek nga mhm. téye xale bi wuuf ko parce que xale boobu mu xamoo lan lay doon ëllëg xale bu mu si jur xamoo lu muy doon ëllëg da war a muñ rek góorgóorlu jàpp ko jàppale ko ma ne ko da nga war a jàppale ko. Mhm. Mhm. loolu daal xam naa ko si. ah bàjjan Sali ndeysaan ginnaaw bi la say dëkkandoo ak say am di jàmm waa koñ bi yëpp génn nanu ndax nee naa la woote ñu wuy si la dafa neex waaye te ku ne xam na ne temps amul robatina jot. amul te ñu ngi ci nawet waaye nga woote rek ñu daal di ñëw rek tarkalla macha allah wuyu la lan ngay wax sa dëkkandoo yi nga xam ne ñoo fi ñëw ak ñan ngay jox kàddu rek ñoom it ñu sànni ci te wax li ñu xam ci yow. xanaa dëkkandoo yi di leen sant rek di leen gërëm te di leen ballu àq ndax xaar bi dafa yàgg. toogaay bi yàgg na. xaar ngeen ma mujjal ngeen ma ba ma pare ci li may def maa leen di jégalu bu baax a baax. delloo naa leen njukkal bu baax a baax jërë ngeen jëf sant naa leen maa ngi sant ñëpp bu ma limee damay juum mënumaa lim bu ma limee damay juum léegi daal joxol ma bàjjen mati kaddu joxal ma kii ak may mun a moom nga def mooy responsable boo ko tuddee tudd nga waa koñ bi waaw kon jeex na mooy responsable seen mbootaay beeg yëpp ah waaw kay nag bàjjen bàjjen bàjjen mati nag bàjjen mati la ñuy jox kàddu bi ah bàjjen mati da ngay daal di pusi nii tuuti rek ñu taataan li nga xam ne mooy sa xalaat ndax nee naa la mag mën naa ba cim réew rawatina mag mu baax waaye te rawatina mag mu yaru tarkal macha allah bokkee bu leen ak mag ñi nga xamante ne si ay magi obali caacoo lanu di bundu xataal ak di sonalaate ak di xatalaate ay mag yi yaru nag mag mët naa ba cim réew bàjjen mati lan ngay wax ci li nga xamante ne si rek moom lañ doon waxtaanee léegi mooy wàllum sëy ak niñ leen di sonalee ak jigéen ñi des fois bëgg na nañu sëy am na ci ñoo xam ne fa ndax daan taa boo demee fekk fa tepp tepp am na ñoo xam ne ba tey bëgg na nañu sëy dañ leen mayul chance ba seen sëy jaare fa tas ñu jaaree fa ne nag ne suur naa góor dootuma sëy ci addina waaw loolu moom am na mhm. xam nga xale xale boo ko yoree na ko yemale ak sa doom boo jëlee sa mhm. boo yoree sa doom caméra boo amee sa doom. la sa goro danga ko yemale sa doom ji nga jur boo ko yemale sa doom ji nga jur dina toog. dëgg la da ngay jàpp ci bu amee problème ci kër gi sax bu ko wax jëkkëram. bu hmm. defee dara nga woo ko yedd ko. Hmm. ne ko de defee nii defeel nii. waaye bu dee àkkamti nga mu def dara rek jëkkëram ñëw nga ne ko sa sa jabar def na lii def na lii. Hmm. njëkk yi ne fii goro xale yi nekk fi ku ne di ko toñ toñal du mën a toog. goro yi sëy ba kii njëkk yi sëy ba tas ndeysaan. léegi nga yedd ko nga loo mu nga koy woo yedd ko def ko ne sa doom bi nga jub boo ko defee ne sa doom am benn problème. lu <laughs> Sali moom man si ma wax Sali laa bëgg a wax Sali Faye mii. ay ca lan ngay wax ci Sali Faye ginnaaw bi nga génnee ci sëy yi. waaw bàjjen Sali dama fee ñëw. ñu fal ma bàjjen ko xaw ma ci dara. mu teete ma moo ma moo formé. Mm-hmm. lu mu xam wax ma moo ma jàngal li ma li may def yëpp moo ma ko jàngal mm-hmm. ba léegi day ñëw sama koñ di ma lijjanti waaw ndax man damaa doon nit yi man mënu ma wax mënu ma wax ci mbooloo lu bari moo ma ciy jàppale mm-hmm. maa ngi koy ñaan li muy liggéey na barkeel amiin yaa rabbi ko yàlla defal jàmm defal njabootam jàmm defal ko mboolem jullit liggéey am na baax na ci am na ci yërmande man dama am lu def sama koñ sax mu ñëw defal ma ko ndeysaan waaw maa ngi koy maa ngi koy sant di ko gërëm dëgg la ay ca rek ginnaaw bi nga xamante ne si rek bàjjan Mati moom it na ci ay kàddu sant ak ngërëm ki nga xamante ne si rek mooy bàjjan Sali mi ñu wuyu si tey dañuy daal di jox rek ndeysaan euh, mooy mooy meen mbootaay ah may mun a jàlloo aha may mun a jàlloo day daal di ñëw rek moom it daal di sànni tuuti rek kàddu tarkal macha allah. Maimouna Maimouna Diallo ji ngi lay nuyu di la bigee di la ziar bu baax a baax di la dalal ci émission bi di pencu démb ak tey tey nag nu ñëwoon seet ci kii di bàjjen Sali ñu gën ko xam ci bàjjenu gox transformation locale yi tamit muy def tey ñu fekk si ko rek mu ànd ak mbooloo bi tey ñu fas yéenee waxtaan ak moom rek ba duggaale ci biir say euh, Adja Maimouna Diallo ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax. ok salaamaaleykum. Mhm. maa ngi leen di nuyu waa zone set di leen gërëm di kontaan seen ñëw fii ngeen fekk si jàmbaar fekk si jigéen boo xam ni wul loxoom benn yoon te ñun rëccu wuñu tamit liñ ko doon fale bàjjan rëccu wuñ ko de ku am soxla taxaw na ci ko am leneen taxaw na ci boo ñaqul sa doom sax dinal fekk ba sa kër génnee la ni la ñëwal génn ñaq sa doom waaw loolu woyefam moo ko ko may mënoon nañ ko ko fal mu mel ni man mm. toog ci këram ni dañ maa fal dong bu ngeen ñàkkoo baax na bu ngeen fajoo baax na sama yoon newu ci mhm. mais defu ko dina war di joxe ay comprimé xale yi dina leen toppatoo wax dëgg yàlla mhm. dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla dëgëral taxawaayam mhm. yàlla dëgëral taxawaayam ba li bëgg si liggéey bi ñu jox ko ko mu bëgg ko si xolam mu am ko si ndam lu mët sëkk sëkk sëkk waaw loolu lañ koy ñaanal dëgg la Maimouna Diallo ñu ngi am mbégte it di la ziar di kontaan bu baax macha allah ci dugg si bi am na solo waaye ginnaaw bi nga sante gërëm kii di bàjjen Sali nee naa la mag mu yaru la tarkal la macha allah kenn du ne bu doon góor waaye euh, Maymuna sànq dañ doon waxtaan ci say ba dugg ci sëy euh, xale yi nga xam ne mayuñu leen seen chance pour ñu toog mën a gérer li nga xam ne mooy seen ménage ndax góor bu tëbee ay buntu kër ba ñëw ci yow ne yow laa bëgg indi la ci biir këram waa kër gi nga xam ne yow moom nga fekk si war nañ laa mën a may chance nga toog sëy sëy bi waaye des fois bundu xataal yeeg xoqatal yeeg day tax nu daw ba dootuñu bëggati sax sëy ci àddina jigéen ñu bëree ngi ci mbedd yi ne bëggatuma ku ma tuddal waxi góor lan moo ko waral kër yee xumb wala xëpp ba mel ni petite lan lax kër yi lu xumb xumb xumb yow yaa ñëw sëy si mhm. boo sëy Mm. da ngay boole ñëpp. Mm. boo ñëwee def ni comme sama kër laa jëm. Mm. yaakaar naa doo am problème ndax boo jógee seen kër amoo fa problème. fa nga jëm waroo fa am problème. Mm-hmm. ndaxte ka ngay fekki mooy sa yaay. Mm-hmm. gis nga doom ji jigéen di nga jur day dem sëyi. la ki sa doom bu góor indi mooy sa doom. Mm-hmm. waaw ñun nag dañuy boole muñ. ak moytu ñun ñun goro yi dañu boole muñ ak moytu. muñ ak moytu. waaw moom la boole parce que xale yi dañu boole nit ak nit. tey fi tey bu boo leen defee dara sa wax sa sa tur mooy dem mhm. mooy dem moo tax da ngay toog boole mu ñëw moytu jël sa jël doom ji def ko rek comme sa doom mhm. def ko comme sa doom bu fekkee ni sax def na la naqadi mhm. nga xool ni bu doon sa doom nii nga ko koy euh, waxee nga woo ko waxee ko ko noonu. Mhm. mais xale am na xale yoo xam ne dégguñu wax. Mhm. dégguñu wax waaw dégguñu daaj. Mhm. waaw léegi nag ñu mel noonu boo ko amee. ah yow yaay muñ rek. yow yaay muñ ndax boo muñu àddina ŋàbb la. loolu rek la. mais est-ce ah. que may ngeen leen tamit chance. bañ a te bañ a jël te bañ a jël pause que ne kii dafa yabaate kii bi mu duggee ci kër gi ba tey dugg na fii génn na faa est-ce que bët bi nga xamante ne si goro yi des fois li moom la ñuy xoolee seen doom bu jigéen. jigéen ba sëyi am ci moom yërmande lool bëgguñu melentaan bu ko mat est que bët boobu ñu ngi koy xoolee jéeg ji sëy ci biir kër yi ah, te sonn lool ñu leen koy xoolee moom mhm. ñu ngi leen koy xoolee bu baax a baax nee naa la doom ji sa doom bu góor indi mooy sa doom mhm. doom ji jigéen ji nga jur beneen yaay lay dem servir mhm. nag ki ñëw ñëw sa doom indi kookoy sa doom mooy sa doom mu baax mooy sa doom rek te ndax sax nag euh, sa doom lu mu dëng-dëng ak buntu xotaal bu mu la bënn buntu xotaal ak nu mu la mënti manqué respect mm-hmm. doo ko sànni mm-hmm. doo ko weer mm-hmm. waaye euh, may mu na am na ci goro yoo xam ne yàqamti nañ ba seen goro def nangam ba ñu toogee ko ca bopp koñ ba aka bon lu mu togg xorom la wala lu mu togg kaane na ko xam na ne man sama tension bi damay yëngal daal di la weer amaana togg nga lu baax togg rek ngay def bu ñu la joxee bu ñu la joxee dépense nga jël sa la nga am daal di comp def ci waaye dañu lay yàq ndax xam nga li tax ca commencement ba bëgguñu la woon seen dooma leen gis rek bëgg waaye yow mii ñëw bëgguñu la boo bëggee sa doom mm. boo bëggee sa doom ku mu mm. bëgg nga bëgg ko mm. waaw ndax xale yi kenn du leen wutal ñooy wutal seen bopp. Hmm. bon boo bëggee sa doom rek ku mu bëgg nga bëgg ko. dëgg boo weeree boo toogee si mbedd mi weer sa doom. Ah. weer nga sa bopp. Hmm. weer nga sa bopp te kër dafa war a am sutura. Hmm. même boo ko defee. te xam ni man mu ma koo lekk dinaa la woo ba nga ñëw ma wax la ko boo lëggee dootoo ko defati. Mhm. bu fekkee ni dégg nga daaj boo lëggee dootoo ko defati. dégg la waaw loolu rek la su mhm. ëllëgee dootoo ko defati loolu rek la euh, Maimouna Diallo daal di wax tarkalla macha allah ba tax na rek goro yi nañu may jéeg ji chance ndax bëgg na noo sëy nañu may jéeg ji seen chance ñu sëy ku ne xam na ne sëy dafa sacré ku ne xam na ne sëy ña ngi bindee ci aras waaye jeeg bu bàyyi kër bàyyi ndey bàyyi bàyyi ñëw ci kër nga di ko bundu xataal boole kook say doom di kompaloo defoo loo xam. pàjjan sa li ñu delloo la kàddu bi nga tàggoo tàggoo bu dul tàggatoo incha allah. asalaamaaleykum maa ngi leen di tàggu di leen gërëm di leen sant yéen ñëpp waa koñ bi gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp. xaar leen tuuti dafa am lu ma leen di jox may leen ma tuuti rek bu leen demagum. toog leen ngeen xaar ma jox su xale yi sunguf yàlla na yàlla dool ñu jàmm dool ñu sutura ci barke ajjuma bi dellu leen ak jàmm Ndeye Fatou maa ngi lay sant di la gërëm di sant seen directeur di sant ñëpp daal su ma ñëwee si télé ba ma fa benn xaar ma yàlla da ngeen may accueillir ci jàmm ak salaam maa ngi leen di sant sant xale yi caméraman yi maa ngi leen di sant ñoom ñëpp sant naa leen waa keñ ba benn di sant sama borom kër sama borom kër maa ngi koy sant ndax moo ma bàyyi ma mun a def lii mhm. moom Cheikh maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di sant sama njaboot gi may jàppale tamit waaw keñ waaw kay bàjjen Sali daal na tàggatoo tàggatoo bu dul tàggatoo waaye waxtaan na woon rek diggante xale ak mag ba tax na man damay daal di jëlal ñi nga xam ne ñooy jéeg part mag ñi ñoom jël nañ seen garde moom dèjà nee nañu xale yi ñoom ñoo ñoom ñoom ñoom ñoo sikk waaye man xale yi laay faral ndax sëy dafa métti sëyit neexul waaye tamit may ñaaxaat te xam ne waxtaan rek la woon nañu mayaat ñi nga xamante ne si ñooy jéeg yi sëy nañ leen may chance jéeg ji nga xamante ne si ñoo nekk ci biir kër yi sëy nañ leen may chance waaye jéeg bi nga xamante ne si itam dangaa bàyyi sa ndey bàyyi sa baay manqué woo ko respect saaga woo ko xeexoo ak moom xuloo ak moom war nga boo demee sëy ji tamit nga jox cër ki nga xamante ne si mooy sa yaayu jëkkër ku ne xam na ne goro yaay la waaye baayu jëkkër tamit baay la ay ca yéen a ngi ci pencu démb ak tey waxtaan bi tey lii la woon rek fii ci ñàgg ñu seet si woon kii di bàjjen sali di bàjjenu gox fii ci ñàgg tarkalla macha allah ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen incha allahu rabbi ak beneen daanaan jërë ngeen jëf yéen a baax